اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمنايا ما اختفى السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci ziar bu mag bi nga xamante ni daara nooru daare ni bi nga xam ne mu ngi nekkee ci diwaanub Kaolack ànd kook mboolem cellule yi nga xam ni ñu ngi nekkee ci biir réew mi di Sénégal ak ci bitim réew amal nañ ko ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides ziyaar yaa ngi doonoon dimanche dëppoo woon ak le 19 mars 2023 ci Daarul Minnan bi mbooloo ma agsee fii ci Touba niñ ko baaxoo amalee jiital nañ ziyaar bi dem ci xalif général des Baye Fall am di Fall moom Serigne Modou Mbenda fekk ko ca Jannatul Mahwa ziyaar ko jébbal ko seenu àddiya برأني العليم من ضلالي فصرت مخستا بلا إخلال برأني العليم من ضلالي فصرت مخستا بلا إخلال محى الحكيم مع ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي ilayya aqbalat hadiyatul karim wa kullu ma kuntu min allahi arum ayatu munzilil kitaabi nuzuli wa innani anil azabi ma'zili isa talawtu ayatan niltumuna min malikin malikin qad amana تعليم باخ لا يزال أكرما على الذي لي يؤدي كرما أبقى سلامي الذي لي خادا بدل سين bi mbooloo ma agsee fii ci Touba niñ ko baaxoo amalee jiital nañ ziar bi dem ci xalifa général des Baye Fall sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda fekk ko ca jannatul Mahwa ziar ko jébbal ko seenu àddiya لي بلا أذى وكلي أمنا أظنه في سفري وحضري مما يخالف رداء المدري لله في الدارين بالماهية بأكبر الرضوان ساعة خيدي لغاد بالمختار ربي كلما طلبت مع الرداء مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عناء أو أذى أو كبدي من ظن أنه يكون أبدا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 suñ borom defal la lu koy sag njortu te ñu ànd ko ak yow lu yàgg te jiital ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ginnaaw buñ ko siyaaree sëñ bi mbooloo mi ñëw tey fii siyaare si la mu ngi tudd daara nuuru daara yi ni cosaanoo Kaolack nekk mbooloo moo xam ne dañoo cosaanoo ci dañ doon jàng ca lycée Valdiodio Ndiaye ak école yi ko wër di wëy di wëy di dem ba ci université yi génn ci université yi commencé di xidma waaye teewoon ni ñun liñ jàpp mooy liggéey suñ Tuubaa ni ñu ko maam Cheikh jàmbale jàngale mooy bañ juddoo ba xàmmee ba ràññee ba keroog ñuy faatu ci lañ fas yéene nekk loolu moo tax nag ñu tàggat ñu ci liggéey bi heure bu at jotee rek incha allah dañuy dajale suñu addiya njëkkee ci maam Cheikh moom mi bunt bi buñ ci jugee nag dem ci sëriñ bi muy sëñ muntaxaa ren nag ñu ñëw fii di ñaan yàgg la di la fekk ñëwoon doon yeesal suñu pas-pas suñu jaayante indi suñu addiya te di ko xeeb loolu nag di ñaan nag euh, euh, Fall Yaram nga ñaanam mbooloo mi yéene gi ñu liggéey Sëñ Tuuba suñ borom defal ñu si lu kawe suñu njot te mu gën a xéewale lool ndax pas-pas baa ngi fi waaye nag doole gi moom soo leen ñu ci ñaanalee gëm nañ ne niñ ko bëggee dinañ am nu kawe suñu njot moom daal Fall Yaram noo ngi ñaan mbooloo mi yéene gi ñu am daal. nga ñaanal ñu ci bu baax a baax a baax gën a yokku doole bi gën a yaatu te lépp luñ def sëriñ bi gërëm ko ci barki sëriñ Touba barki maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag tey indi nañ fi addiya woo xam ne fas yéene la kaa jébbal te di ci sàkku rek ngërëmal sëriñ bi mu ngi toll ci 300000 waaw waaw bu loolu wéyee itam comme sëriñ bi moom ci lim ñu tàggat ñun ñëpp mooy daal tàggat gune yi ba yàlla def am nañ benn makkaan boo xam ne kawlag fag woon nañ ko ci 4 millions 600 ginnaaw loolu nag ñoo ngi dox ci jëmmal ab daara boo xam ne gune yi dañ leen ci tàggat ba buñ ci jógee incha allahu rabbi dañuy dugg ci makkaanu Cheikh Muntaxa gi wala ci yeneen ñu nekk ndam ndaw yoo xam ne fu ñu génn rek dinañ mën a wane yoonu murit dinañ mën a wane maam Cheikh Ibrahima Fall lim ñu jàngal mooy xitma liggéey Serigne Touba jaamu yàlla kon nag euh, Fall yaaram ñaari maquette yaa ngi nii incha allahu rabbi suñu benn mbokk ñaari mbokk taalibe ñoo ci liggéey kenn ki moo ngi tudd Cheikh Abdoul Hakim baabu keneen ki moo ngi tudd bàyyi Baye na jóob incha allah fas nañ yéene njëkkee ci yow nga ñaanu ñu ci ndax lii de ay jëf moo koy matal te nag jëf moom fii la fekk baax te boo ñu su ñaanalee rek buñ demee ci mun Muntaxa gëm nañ ne mbir mi dina gën a gaaw noo ngi jéggalu bu baax euh, ci kàddu yi lu ci dëng rek faal ngeen jéggal ñu ko lu ci jub nag sante nañ ko bu baax sunu borom di ko sante sëriñ bi di ko sante maam Cheikh Ibrahima Fall dina la ñaanal Fall yaaram nga gën fee yàgg gën a wér noo yéene rek suñu boom dafa la kaw sa njot te ñu yàgg la di la fekk ànd ak ñu mun mën ren bu déwénee yàlla nañ mën lu ko fawxa ba mënuñ kaa lim ci barki sëñ Tuubaa noo ngi jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maxtartani wal atayadal man ni mallaktani sarraftani tamlika ahsana tasrifin ala muluka يقود لي كن فيكون منك سؤلي بأمن خرديت عنك ملكتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم سخت لي النفع بخير الدر وجهت للخير بخير السر سخت لي المسونة المحررة قبلت مني درر المكررة ginnaaw bu mbooloo mi nga xam ne mooy daara Nuuru Daarayni bàyyi ko ci xalif général des Baye Fall sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbenda delsi nañ fii ci daarul Minaan ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou fas yéene koo ziyaar moom it jébbal ko seenu àddiya sallamtani min kulli sooyin wa balaa fasirtu mutlaqan wa xayri ku bilaa wajjahtani ilaa xamaaliki malik mustaniyan nil muluki wa suluk awaytani bil mustafa ilayka xillan wa ibban abadan ladayka wajjahtu kulli lil karimi wal jamil wadil wadudi rabbi anu bi nga tàmbalee université bi lañ amoon xalaat loolu mën ko foofee ca Kaolack fas yéene ko fa iji ba màkkal alxuraan ngir boo fa génnee ñu mën laa dugal ci université bi Mbàkke loolu moo nekk seen yi am na yow ci liggéey bi waaw nee leen góor waaw nee na lépp rek ndeysaan nee na jërë ngeen jëf mu ne loolu tawfeex sëñ Tuubaa rek mu ne ñaanal seen tawfeex sëñ Tuubaa seen yéen a jëpp àgg waaw mu ngi leen koy ñaanal baax a baax waaw jërë ngeen jëf bisimilah bisimilah. daayira mooy Serigne Mbacke Gueye moom it Mbacke ni seen. ginnaaw bi ñu amalee ziar bu mag bi ci kanamu xalif général des Baye Fall am Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda ak xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke moom ba Bassirou jëwrinu daaray nooru daare nii am nay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkatiwaat nañ ko soññaat mbooleem membre yi nga xam ne ñoom lañu àndal liggéey bu sell bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu bokk taali bi yëpp di leen santaat di leen jaay jaajëfalaat bu baax a baax di sant wax di yàlla ci bis bi tedd bii ñu jógee muy amal gi ñu doon amal ab ziar ci ki fi nekkal Cheikh ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan sa borom yàggal ko fi loolu te wér. waaye la ko jiite itam ñu jëkkee ko ki jëkkee fi nekkal maam Cheikh Ibra si am ni muuru mbend Fall yal na fi yàgg loolu te ànd wér maam Cheikh Ibra Fall loo xam ne eh, bokk ci li nga xam ne daara ji moom lu la muy saa waxtu wi bu jotee ci at mi ñu daylu suñu addiya tàmbalee ca ki fi nekkal maam Cheikh Ibra jëkk fa jébbal su jébbal ko suñu addiya sàkku ca moom ñaan itam su ko defee mu doon ubbeeku ci ñu jëm ca ki fi nekkal Serigne Touba ndax ku ne xam ne maam xam na ne maam Cheikh Ibrahima Fall moom mooy lamp yoon wi te mooy bunt bi mel ne tam loolu firndéew na tey ci jaar gañ fa jaar te daara ji mas a doxee noonu liggéey ba mu tàmbali ba léegi ci dëgg euh, atum 2000 2001 ba léegi saa bu ñu mase masaana jóg di yóbbu suñu addiya ki fi nekkal Serigne Touba dañuy fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall kon mu mel ne ci sëñ Modou Amine Fall la tàmbali woon Serigne Saliou ba te jii sëñ am di sëñ euh, am di Modou Mbenda ak Cheikh moom da mënta xaar ñaan saabu yàgg leen lool te wéral leen muy liggéey boo xam ne tam mel na ne ay at la ci ginnaaw waaye tam muy dox ba yegg si fii tey ren jii yàlla dafa ñu tawféex lool ci loo xam ne yéene woon nañ solo xam nañ itam na ne defoo sa dund sa lépp ca moom xeeñ ci lu baax sag jiima dox ci lu baax lépp Sëriñ Tuubaa la ndax mel na ñun mbooloo mii kat di du ñun Cheikh Sidi te ñoo tàmbaloon liggéey bi ci lycée ba ay at ci ginnaaw doon ay élèves ba tey ji yàlla defal dool ñii doon ay professionnel nekk ci gox yi fa fasanti ko ñii ñi ngi ñi ngi ci biir Sénégal muy Silalu kawlax ci njiitul Sëriñ aliw ñoo koy sant bu baax ci wax yàlla coordination bu am solo bi mu def ci liggéey bi ba jëf ja kawe lool waaye itam ci njiitul Sëriñ Modou Ndiaye di jëwriñ Ndakaaru moom itam kon yalla ren mu doxee doxin wam solo lool ñoo ngi koy sant bu baax a baax ak mbooloo mi mu àndal liggéey bi yëpp waaye itam ci yeneen cellule ku mel ne cellule Thiès njiitu Serigne Fallou Fall moom it ñu doxe liggéey bi liggéey bi kaw yàlla Serigne Touba nangu liggéey bi waaye loo xam ni ren daara ji da ko taxaw luñ mooy li ñu wooye ay pôle professionnel mooy mbooloo moo xam ni yàlla dogal na kenn ku ne am na ci looy xëy ñu leen di wooye ay na jàng nañ ba noppi seen njàng bënn na ñii ne di di maanaam di liggéey ci ci wàllu wàllu Euh, euh, diplôme yi nga xam ne am nañ ko njàng mi ñeneen ñi nekk ci yaxantu leneen loo xam ne lu leew ñu leen di wooyee ay pôle professionnel bu dee ñi nga xam ne ñoo nekk ci Kaolack ak li ko wër mu ñu koy ci njiitu sëñ Gora Mbeng moom itam mu def bu def ci liggéey bu am solo noo ngi ko àndal waaye itam ñi nga xam ne ñoo féete Dakar ak Thiès ñu koy wooyee pôle euh, est wala pôle ouest wala Dakar Thiès ci njiitu Sëriñ Massamba Diouf moom it ñoo ngi sant bu baax ak mbooloo mi waaye itam ak yeneen ñu amaan nag ren jii mbooloo mi yàlla dogaloon am ñoo xam ne bokk ñoo sumanoo liggéey bi léegi nag nekk na ci ñu nekk bitim réew ren ñu ñu amaloon jéem leen a boole ci cellule pôle nord mooy mboole ñi nga xam ne ñoo féete Europe ak Canada ci njiital sëriñ Baye Mor Lo nga xam ne mi ngi ko bokk ak sëriñ Cheikh Fall mi nga xam ne mooy finance bi ak sëriñ Mor Lo ak sëriñ Mamadou Sène waaye dem ak sëriñ Xaadim Ndaw mii nga xam ne tey ji yàlla dogal na mu fekk jotaay bi nekk jàmbaar joo xam ne liggéey bi ñun léegi rek maa ngi koy seeral ne liggéey bu yegsee fii ñun yow lañ koy sante ndax doxinu daara ji ci wàllu jëf saa bu lii masa xew kenn du yërëm sa bopp ren ren da ca firndéw kenn ku ne da sa bopp wat naa ci Sëriñ Tuubaa ku ne de mel ne ni nga jëfee xam ne ne maanaam sa sa bëgg lu baax sa pëstef képp moo la ko may waaye du loo xam ne mel ne lu fi lu fi daje la waaye yu yóotu loo xam ne itam meneen ne dañ maa sagale loola ndax ba ñuy départ dañoo amoon objectif objectif 3 millions wóor na Sëriñ Tuubaa 3 millions daje na ba lañ ci bëggoon def def nañ ko muy mooy la ci ëpp solo muy jox nañ Cheikh Mountakha 2 millions yoo xam ni eh, teg nañ ko ci loxoom te nangul nañ ko nangul nanu ko laata moom itam ñu ñu jiitu ci ñu njëkk ci sëriñ Amdi Mourou Mbend jébbal ko 300000 moom itam mu mu liggéey bi nangul ñu ko ñaanal ñu ci biñ ñëwee ci Cheikh moom da Muntaxa loolu firndewu ci ren ji wax dëgg am na tawfeex goo xam ne mbooloo ya fa dayoon bari nañ lool waaye yàlla defal nañ loo xam ne mel ne maanaam am nañu ko bëggoon te amuñ ko te loolu mel na xañ na du bari waaye mbooloo du lenn waaye mel na pësier boo xam ne a baax xam ne liggéey bi lii rek la moom sa saa buñ maanaam maanaam buñ man koo am luñ bëgg rek mu ne suñ kanam te kenn bañ ci am déng-déng xam ne si diggante Sëriñ Tuubaa moom lu loo ci amul ci yow la mel na ne sa lépp lu taxaw suñ kanam ñun man mën nañ ko mën nañ koo fël jàll wala moom waaye loolee moom waruñu woon résister maanaam amul lenn loo xam ne war naa a taxaw suñ kanam ci lu mën di nga xam ne noonu murid ji wér nañ ne cëng ci ne lu Sëriñ Tuubaa teg loolu mel na ne maanaam woote Sëriñ Tuubaa wala liggéey Sëriñ Tuubaa wala ndigal Sëriñ Tuubaa moo ko fi bàyyi loolu firndew na ci ziar bi kon ñoo ngi ñaan ci barkib sëriñ bi mboolem kenn ko xam ne ka fa jëf dërëm la ñaar dërëm wala ay million lu waaye nu mënti toll na xam ne Serigne Touba dong nga taxoon mu koy jëf te Serigne Touba rek moo tax jëfal te jëf jooju yàlla na ko Serigne Touba na ko doo ful nag mu doon ay milliards yi milliards ci loolu ñu amee lool te it nag mooy ñu defal ñu xol yu nangu yoo xam ne saa bu dikkee noonu dañu xam ne liggéey si Touba képp moo tax moo tax mu tabb suñu loxo waaye dara àdduna taxul taxul mu jóg ñun loolu maanaam loolu rafet na ci njott ci mbooloo mi baax a waaye loolu itam ñu ngi leen ñoo ngi gën a ñaanaat suñ sëriñ bi ci kattanam mu dimbali ñu loolu sëriñ bi na ko baax fas ko dem ci siyaar bi ci ne noonu daal lu am am ci ci ci ci lu ci lii wooye àllu àdduna looleen ñun li ëpp solo lépp yàlla na tabb ci ci tabb ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi la mënta ñàkk nag xëy na ci njaboot gi ak lu mën di doon loolu moom leneen lu fa demee nu xam ne loolu lu suñu mu wëlbati ko def koy addi yoo xam ne dina ko nangu dencal ñu ko bëgg rek euh, bis penc yeex mais ne bi di lii rek la ànd bi di lii dong dong lay àndee muy tawfiix joo xam ni Sëriñ Tuubaa defal nañu ko waaye mu seen képp koo xam ne mas ngaa bokk ci daara wala moom mas ngaa bokk daara waaye mas xam daaru daara wakkaan xàqan wala mafaadul bisir wala fatul wahab euh, ba tey jii di nuuru saa boo déggee nga ñëw ñu ànd ko te dikk ga dikk nag ànd ak ñun ci liggéey ba loolu képp nun maanaam mbégte lañ koy jàppee waaye itam loolee itam dañ la cay fasaale nun luñ ci am ci tawfeex ak xéwal yàlla nañ ko naan ko bokk mel rek nañ ci njort bu baax a baax bañ ca diggee dikkee itam xam ne mooy yéene ji am muy jëm ci am daara eh, yoo xam ne institut lay doon boo xam ne danañ fexe ba suñu njaboot ak njaboot bépp julit man faa dare jàng alxuraan mën a tàmbali mën a tàmbali tam bu bu bu bu bu noppee ñu mën a tàmbali di di di di di di gëstu xam-xam ci wàllu téere yi nga xam ne moom mooy ci téere a dal njàngum tubaab ba keroog boo xam ne mooy baccalauréat baccalauréat su ko defee bu ñu fa jógee nag la nal te liggéey bi tàmbali ak yeneen université yi nga xam ne mi mi Sénégal mais ne yéene jooju gaara nañ ko sëriñ bi itam sëriñ bi itam rafetlu na ko ñaanal nañ ci loolu moo ne suñu kanam loo xam moom nanu xam ne lay tax mu sotti nag moom daa mel ne xaw a dee rek la lay tax mu sotti moom du ay du du du du ay dërëm du ay ñaar la ay milliards la loolu ña ngi woo ñëpp tey boo xam ne incha allah danañ danañ nekk ñëpp ñëpp waaye xam nañ ne sëriñ bi moom ginnaaw noonu nangu nanu ko war nañ ko plan bi yëpp ba ba ba moom loolu sotti na ba noppi kon loolu moom ñoo ngi cee woo ñëpp ku ñëw incha allah liggéey bi dina sotti ku ñëw liggéey bi dina sotti xam nañ ne ñëpp danañ ñëw kon ñoo ngi ci woo ñëpp mel ne loolu moo tax suñ taxaw suñ kanam ak li taxaw suñ kanam mooy màggal gi ñu dëgmal loolu itam mel ne leneen la kon mel ne lii ba matee ba noppi ziar bi noonu maanaam suñ ginnaaw la féete li ñuy dëgmal mooy ziaru déwén bëgg nag incha allah objectif bi ren fi ñu ko teg bu déwénee moom gàtt gàtt juróomi millions yi mat te loolu dañoo bëgg liggéey bi tàmbali léegi kenn ku ne boo fi jógee nga xam ne man déwén juróomi million lañ soxla déwén man man man euh, ren ji soxla woon noonu ñetti million mat na man li ma ci def ci jëf ren kon bu déwénee lu mu lu mu gàtt gàtt war naa maanaam war naa euh, jëf ñaaram loolu nag nga tàmbali caa jóg ba jaaxaar kenn loo am loo am nga xool ca pool ba nga bokk nga koy finance nga tàmbalee loola ci noonu la ñu bëggee doxee bi noonu la ñu bëggee ci màggal gi ak ci rawatina ci màggal bi nga xam ne moo na suñu kanam nga xam ne coût bi pour le moment li tam nga xam ne R1 maanaam bu dee niveau r kon mel na ne budget bi néew lu ndaw waaye jëf rek moo koy moo koy matale jëf ji nag mën naa mën naa ajiwu mu bari ba tax loolu ñu ngi woo ñëpp incha allah bëgg na bëgg a dikkaat wax di yaat la liggéey bi ci ci ci lycée ba ak ci ci collège yeeg CM école arabe yi nekk ci Kaolack waaye ci fépp Sénégal goo xam ni su taw am nga taw féexu euh, ñu suñ borom tudd ne war nañu mën a ànd ànd liggéey liggéey ngi jëmmi suñu loolu nga ànd ànd koog ñun te luñ ci amee itam ñu ñu ko sëriñ bi ñaan mooy mooy yitte ji loolu mooy kaddu yi ci di na suñu tubaab bëgg nañ lool rawatina bi fi ñëwaatee ren ñu ci am suñu jëmm yoo xam leen ñu gëju leen gis ay at leen mel ne kon liggéey wax yàlla xel mën na caa dal bu baax ci mel na ne xañ na gëj a gisee mën naa am ci jëmm yi waaye xol yi saa su ne ñu ngi gisee te loolu rek mooy solo si kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan mboolam ku fi dikkoon yàlla na Sëriñ Tuubaa faj say aajo ci zahiran wa baatinan lu fay indi woon ci aajo yaa ko yaa ko ko gën xam fop sëriñ bi moom sax dara ump ko ci waaye si lépp daa daal di saafara ba yow boo ne man kat lii an maa ngi ko amee ci bi nga xam ne amoon naa ko amee naa ko ci ci kanamu Cheikh Mountakha te mu ñaanal ñaanal mbooloo mi ak yokkute ak ak yàgg wér ay yu ne yu mën a liggéey sëriñ bi loolu rek lañ lañ ciy fas te ñu rafet nañ jot ne sëriñ bi defal nañ ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah leen di ziar bu baax a baax di leen balu ax te it di leen balaax di sant bu baax sunu jëwriñ ji nga xam ne moom mooy jëloon kàddu léegi ñu koy wax Serigne Fallou sëy di jëwriñu mbooloo mi kàddu yi dafa mel ni moom lépp matale na amul lenn loo xam ne ci résumé boobu dinañ ko ci mën a yokk ñun koy xanaa li ñuy def rek mooy indi ay kàddu cant jëmale ko ci mbooloo yi nga xam ne sunu borom dogal na ñu àndoon ak ñoom ñii bàyyeekoo Kaolack ñii nga xam ne dañoo bàyyeekoo dakaar ak ci senegal yépp kàddu cant yooyu ñu jot ci ndigal mu jëmee sunu jëwriñ ñu koy jàllale ci mbokku taalibe bi yépp góor jigéen mag ak ndaw nañu xam ni yëg bu baax a baax ni sëriñ bi maanaam jëwriñ sant na leen bu baax a baax a baax ci teewaay bi te it ci jëf ji comme ni mu ko waxee léegi ci it ci teggin yi ci yar gi lépp li nga xamante bi suñu borom dogal na ñu taxawee ko ci ziar bi nga xam ne ren amal nañ ko mu nekk loo xam ne nekkoon na suñu kanam xawoon nañ ci it am jaaxle waaye gis nañ li nga xamante bi noonu lañu ko sëriñ bi defalee mu tawfeexa lool ñu jaar fa nga xam ne fa lañ daan jaar te it am ci lool lu kawe suñu njort lool lool lool lool kon loolu li ñuy def rek mooy sant mbokku taalibe bi yëpp mënuñoo lim ñëpp nag waaye képp koo xam ne sunu borom dogal na nga bàyyi ko kawlek wala it nga amoon yéene bàyyi ko kawlek ànd ak ñun ci ziar bi na la na nga yëg ni jëwriñ sant na la bu baax a baax a baax a baax te it képp koo xam ne it maanaam sëb liggéey tàbbi na ci nanga xam ne. tawféex la ndax sëriñ bi moom comme nee na liggéey bi agsi na ci moom te jot na ko nangu na ko kon ñun loolu tawféex lay doon ci ñun bu baax a baax leneen li nga xam ne moo ci topp mooy ab murit moom moom jaajëf bu ñu ko ko waxee rek mooy na takkaat la mooy lii moom weesu na romb nañu fi mu ne romb nañ ko ba noppi lii suñ suñu kanam te nga xam ne jëwriñ junj na ko moom suñu suñu sunu bët foofu rek lañ ko war a teg waaj ko teel koo waaj ba nga xamante ne bi tey buñ ci agsee maanaam dañuy dañuy sëpp rek lépp lu ci jëm dañuy compter ba mat ak ñu sëpp te loolu mën nañ ko nañ ko defee ni nga xamante moom lañ moom la ko waxee moom exemple bu ndaw bi ci am rek ci diggante bu gàtt rek bu ñuy xool biñ nga xamante wàcc nañ ko ziar bi ak it baar ba li nga xamante bi yitte ji nga xam ne moom tegoon na ko fu fu kawe kawe gim kawe teewul mbokku taale def nañ seen këm kattan ba àgg foofu moom la wax léegi ne la nga xamante moom la doon yootu jot na ko te loolu ci diggante bu gàtt lañ ko def kon nag bu fekkee ni fii ak at lañ war a ziarat kon lii mu wax waxuma la mën nañ ko waaye duubalam sax war nañ ko mën ndax it barki borom Tuubaa ñun ñëpp yokk nañ yokk nañ bu baax a baax a baax bu baax kon it nañ def suñu kem kattan ba nga xamante bi lépp loo xam ne tey daara ji sumb na ko suñu loxo génn ci feeñ ci ñu jëf ci wax ci dox ci képp koo xam ne it war nañ ko ànd ak yow incha allahu rabbi danañ ko ànd ak yow ci àndin wi gën a rafet ndax it daara ji moom moo baaxoo noo xam ne buggul kenn comme ni mu ko waxee léegi képp koo xam ne waxuma la sax ko ci mës a jokk waaye ku dégg nooru daara ni rek moom saa su nekk dañuy bëgg fépp fu ñuy dem ànd ak yow ànd ak yow ci liggéey bi lépp lu ñu am it muy tawféex ñu ñu ñu bokk ak yow firnde gi mooy ren bëri na ñoo xamante bi tey dañoo ñëw ci ziar bi te ñun ñoo sàkk ñu ñëw ci ñu ñëw ci ziar bi xëy na sax seen tour newul ci kay bi te loolu yëpp bëgg ñu ànd ñun ñëpp. bokk ndey bokk bàyyi xam ne lii nga xamante bi tey moom la moom la sëriñ bi teg suñ kanam moom Pastef képp mooy tax nga mën cee am li nga xamante bi moom mu bëgg ñun ñëpp xam nañ bu baax a baax ni sëriñ Tuubaa moom amul lenn loo xamante bi lu ñuy maye la lépp loo ci am rek xaw de dee moo la moom mooy tax nga jot ci kon nañ nàmmaat laxasaay yi ñu koy ñu koy njëkkee suñu bopp soxna yi jëwrin gërëm na leen bu baax sant na leen bu baax a baax ci teewaay bi ci yar gi ci tekk gi ndax it am nay jamono daanaka maanaam dajale leen wala canaliser leen da doon da doon da doon nekk jafe-jafe waaye ren gis nañ ne fépp fu ñu leen wax ni taxaw leen fa taxaw ngeen fa fu ñu leen yemloo yemloo ngeen yem yem ngeen fa te it seen addiye ñëw na kon loolu moom duñ def lu dul sant leen bu baax a baax di leen ñaax nag bu baax a baax ñun ñëpp ñu ànd lii nga xamante bi dëgmal nañ ko te te sëriñ te te sëñ Fallou lim ko léegi ñu xam ne loolu mooy objectif yi nga xam ne moo nekk suñu kanam. li ci taxaw te te taxaw ci léegi léegi moom mooy màggal Tuubaa gi nga xam ne tudd na ko léegi ak yeneen yi nga xam ne mën naa sof sax ci diggante bi kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax kàddu yi foofu lañ koy yemale du gudd lépp liñ ciy wax daal mooy sant nañ mbokku taali bi yépp waaw ci curu jëwrin dañ xam ne képp koo xam ne teew nga fi wala ñëwoon te buggoon a ñëw it na xam ne cant gi moom sant nañ la ko te sant it du du weesu sant bëgg nañ bu baax a baax a baax a baax ci ñëpp. kon nag li ci des mooy ñu ñaanal ki nga xamante ne bi tey moo fi toogal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal it ki nga xam ne tey moo fi toogal euh, maam Cheikh Rama Fall kon ñu xam ne loolu képp moo ci des suñ borom gën leen fay yàggal ba nga xamante ne bi sumb yiñ sumb ñu àggale ko ba sumbaat yeneen ñu ànd kook ñoom te it lañ doon sàkku nga xamante ne bi tey sëñ bi defal nañ defal nañu ko mooy doon jumtukaayu sëriñ bi nañ xam ne tey tàmbali na kon nag jumtukaay sëñ bi moom boo ko doonee saa su nekk dalaa fekk dalaa war a fekk nga pare maanaam waroo nekk ñu naan ana nangam ngay ngay doog a wëri yow dangaa ngaa war toujours nekk nekk au taquet taxaw xaar nga xam ne bu ne laa fii rek nga nekk foofu kon ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ mbokku taalib yëpp sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañ jiite fee Ndakaaru ñu doon ay ndaw ñoo xam ne ñu ñu bëgg liggéey bi lañ ñu bëgg sëñ bi ñu bëgg jëfal sëñ bi kon loolu ñu leen si sant bu baax dañ naan jëwriñ nga gën leen a fas fasaaleel bu baax a baax a baax waaw mbooloo mi gën leen a fasaaleel bu baax a baax a baax ñu ñu ñu sax dàq si li nga xam ne maam moom moom lañ nekk suñ borom bañ maam ñu ñu ban see jóge ndax kat des fois rëcc rëcc dina am nga jàdd loolu mënta ñàkk si doomu aadama mais gën nañ ne bu ñu ko fasaale rek suñ borom dañuy suut dëgëral ba li nga xam ne bëgg ngeen ko maam ñu nekk si loolu képp la ñuy sàkku si yéen ngeen di ñu ko fasaaleel baax a baax waaw ndax li nga xam ne kat mooy mooy jëf moom yàlla dimbale ñu ba royee nañ ko si yéen si yéen waaw loolu moom ah moom na seen xel dal lépp lu ngeen lu ngeen joxoñ bu soobee borom taa dinañ ko dagg kon loolu na seen xel dal bu baax a baax a baax di jégalu baax si kàddu yi. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar waa NDK di jiital si ziar bi suñu kilifa Baye si la di si teg suñu jawriñ sëriñ Fallou Seye di ziar suñu mbokk jawrin yi yëpp di ziar soxna yi di am mbégte bu baax nag ci li nga xam ne soxna yi noonu noonu noonu taxawalee liggéey bi rafet na lool macha allah gis nañ seen pasteef si liggéey bi saa yu daara bi soxlaa rek ngeen dagg seen itte ñëw wuyu si loolu nekk lu am solo ndax jamono tollu na foo xam ne heure bii mënoon nañoo fekk feneen mais alhamdulilahi rabil alamin ñu santaal sëriñ bi bu baax a baax du suñu njàmbaarte nag sëriñ bi moo ñu dimbale rek ñu nekk ci liggéey bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan ak pasteef ba ñu sax dakk ci di liggéeyal seexul xadim incha allah sant naa mbokku soxna yëpp bàyyiwuma kenn wax dëgg fa yàlla gis nañ seen pasteef ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xanaa di leen soññu rek ñu góorgóorluwaat bu baax te xam ne àdduna dafa jaxasoo jaxasoo boo xam ne mën nga nekk ci lii leneen ñëw fëq la yóbbu la waaye nag ñun góorgóorlu gën a takkaat laxasaay yi roy si ki nga xam ne mooy soxna jaara bu so roy si ay jikkoom nekk ci liggéey bi rek incha allah te fas yéene sax ci dàkk incha allah rabbi jaajëfal naa ñëpp kontaan naa bu baax. ñu di ci jiital suñu bopp rek ñu gën a takkaat laxasaay yi gën joxaat daara ji yitte. ñu ngi ci soñu suñuy bopp di ci soñu mbokk soxna yëpp di rafetlu ziar bi bu baax a baax ndax ni mu ko bëggee defe naa amee nañ ko ni sant nañ bu baax. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy liñ leen jëlalee woon ci ziar bi nga xam ne moom la daara Nuuru Daarayni amaloon ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides. ziar yaa ngi doonoon dimanche dëppoo woon ak le 19 mars 2023. fii ci Touba Mbacké di santaat bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne ñoom lay àndaloon ziar bu sell bi ñaanalaat Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom ba Bassirou xalif général des Mourides mu gën fee yàgg lool te gën a wér ñaanal ko xalif général des Baye Fall Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم الجدود لله قد وجهت كل حمدي وقد ما أساقة وحمدي على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تعليم يباشر الملائكة الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرت قديمه وسعسع العتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون محمد خير جميع الكون wa kaana li billaahi xayra kawni